wa xayri xadimi ajmain salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy teewlu ak fu ngeen mën di nekk ngeen di nuyu di leen ziyaar waaye di leen baalu àq di leen baal di leen dellu di ndokkeel ci weeru tedd yi di ñaan li ci jot a wéy suñu boroom nangul ñu ko li ci des suñu borom kàttan na ñu defal ñu defal ñu tawféex bañ matal ko te lépp ànd ak nangu ak ful comme ni ngeen ko xamee jotaay bii di gàggantiku di jotaay boo xam ne da ngeen koy ànd ak GMT TV muy télévision bu Jumaay Touba ñu koy faral di amal ci weer wi ñaari yoon fukki fan muy juróom-ñeenti fan ak ñaar fukki fan ak ñaar le 9 ak le 22 ngeen baaxoon cee ànd ak euh, suñu mbokk Cheikh Abdou bu so moom Serigne Thierno mu baaxoon toog fii tey ñu wóotu ko fi ngir ngànt lu gaar comme ni ngeen ko xamee émission gàggantiku lim wundu rek mooy. yi nga xam ne ay masala la yoo xam ne dafay soxal mbooloo mi di dëppoo ak jamono ñu bëgg cee am gis-gisu diine ak tëraliinam moom la dalal kenn ci suñuy kàngam bu ko defee sottante ci ak moom ay kàddu mu wax ñu ban taxawaay la ci lislaam am comme ni ngeen ko xamee koor dafa bari yu muy àndal ci ay xew-xew ak i àtte bokk na ca xew-xew yooyu nag ak àtte ya yam ya ya koor di faral di àndal mooy lu ñuy tuddee muurum koor muy loo xam ne dañ koy génne bu koor gi jeex waaye it bokk na ci yami àndal nga xam ne moo koy tëj di ubbi laneen mooy jullik ayit kon ci biir loolu ginnaaw ñu ngi ci fan yu mujj yi ci koor gi tey dañoo bëgg a waxtaanee muurum koor ak àtte yi ci aju waaye bu ñu noppee nag waxtaane lu aju ci jullik ayit moo tax dañuy dalal kenn ci boroom xam-xam yi ñi nga xam ne baaxoo nañoo ànd ak ñoom jotaay bi jotaayu gàggantiku di koo xam ne xam nañ ko ci wàll wi di gëstukat waaye it di ku laabiir ci xam-xamam di it ku yàgg ànd ak ñun liggéey bi ngeen xàmmee ko lool ci jotaay yi yi am ci jumaa ji rawatina jotaay bi di gàggantiku muy Serigne Cheikhouna Abdou Doudou xam naa dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo bu ñu noppee ñu daal dugg ci waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi Xaadir noo lay delloo nuyoo tey nuyu mboolem ñi sunuy kàddu di àgg ci ñoom ak fu ñu mën di nekk. di ñaan koor gi li ci jot a jàll yàlla nagul nu ko li ci desit mu yombalal nu ko te nangul nu lépp itam te dellu ko ay yoon yoon yu nuy fekkee ci ak wér akuk tal euh, sëriñ Abdou Khadre ok jërëjëf sëriñ Cheikhouna ñu ngi lay fay bu baax a baax di wax amin ci ñaan yi sëñ bi mu mel ne ñu ngi ci fañ yi mujj ci koor xam nañ ne koor buy jeex am na lu mu baaxoo àndal muy xew-xew boo xam ne dafa amee àtte loolu mooy lu ñu tuddee zakatul fitr muurum koor ñu bëggoon a xam rek ci njër benn waxtaan wi muurum koor mooy lan ak lan la wund bu waxee muurum mooy lan ak lan la wund maanaam lan mooy njariñam wala bokk lan mooy ay maqasidam lan moo tax ñu waral ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko waral ci ñoom sëriñ Abdul koor mooy lu ñuy joxe lay doon ci jamono kori bu fekkee jant bi mujj ci weeru koor bi bu sooyee fa lay ware am na ñu bu fajar jotee waaye manees naa jàpp daal bu jantu jantu jantu bi mujj ci weeru koor bi bu sooyee ne ci la muurum koor di ware li muy doon nag mooy lu ñuy génne la di ko joxe li ñuy génne nag la cay cosaan mooy ab dund lay doon dund boo xam ne mooy doon la gën a la nit ñi gën di jëfandikoo ci dund bu ci jamono yi ci suñ bërëb yi kon dañ koy jàppe ceeb ndax nit ceeb la ñuy gën a jëfandikoo ci seenu dund kon dañ naan lu ñuy génne ci ceeb lay doon day mat itam lu dul sori ñaari kilo ak genn wàll ñaari kilo ak genn wàll yooyu ki koy génne da koy génneel boppam génneel ko itam képp koo xam ne moo ko moo ko war a dundal kon day génneel boppam ñaari kilo ak genn wàll kenn ku ne ci ñi war a dundal itam mu génneel ko ñaari kilo ak genn wàll jox ko ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw la tax mu koy warit nag day fekk bisub kori bi mu am ci moom dépense dépense bu su kori gi am na ko muy li muy dundale boppam ak njabootam am na ko am lu ca dolliku la ca dolliku bu ci mënee génn li ko war lépp mu génne ko ci bu fekkee li ko war lépp xaju ci itam mu génne kon lépp rek mu dugg ci waaye daal kii génn mooy koo xam ne bisub kore bi am na ci li muy dépensé moom ak njabootam ba am lu ca yokk la ca yokk ci lay génne ci lay génne murum koor saxaaba yi yi nu ko jot li itam wax na yonente bi da koo farataal kon farata la ku ko man da ko war a def dañoo wax ne yonente bi dafa wone ne Euh, génne muurum koor amal na njariñ ki koy génne waaye amal na njariñ itam mbooloo mi ki koy génne bu ko génnee loo xam ne mën naa am defoon na ko ci koor gi cay rëcc rëcc muurum koor moomu da ko da cay setal man da koy laabal ca loola ñin koy jox itam koor yi feet la nin ko xame feet nag jullit ñëpp dañ ci war a bokk ta feet bisu mbégte la war a doon bisu mbégte nag day dàqonteeg nit di génn di laaj ak a yalwaan moo tax yonente bi waxoon nekkoon kon ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw bisu feet bi ñëpp war a bokk ñu war cee bokk ñoom itam nañ leen ci jox lu ñuy mën a euh, jàpp ci bis bi mën a bokk ci feet gi ba duñ aajowoo di wër di laaj ak a yalwaan kon njariñul kii joxe la ndax day laabal da koy setal ci ay rëcc rëcc yu mu defoon ci koor gi xëy na waaye njariñul ñun koy jox la itam ndax day tax ñu am luñ jàpp ci bis bi ba mën a bokk ci feet gi nit ñëpp nit ñëpp di bokke loolu kon sëñ Abdul Xaadir mënees na koo tënk ci wàllu muurum koor mooy lan ak lan la wund ok jërëjëf sëriñ na yaakaar naa leer na naa ñu kon lan mooy muurum koor wax nga ne lu ñuy génne la wax nga waxtu ñu koy génne it bu ñu nee weer wi feeñ na kon xëy na rek bu ñu nee weer wi feeñ na weeru kor gi feeñ na jamono boobu lañ koy génne wax nga ci liñ koy génne mooy li ci dundu ki nit ki fam la ëpp dundam fam nekk foofu lañ ci loolu lañ koy génne wax ngay njariñ yi ndax xam nañ ne lislaam lu ci baree bari du yoonal dara lu may dafa am ci am ay njariñ ak i jubluwaay ngi ne jubluwaay yi njariñ la ci moom muurum koor njariñ la ci ki koy génne waaye njariñ la ci ki mu koy jox mhm. comme ni nga ko waxee ni mu leer leer na naa ñu ko dëgg yàlla mu mel ni ci biir loolu kon mën nañ fee amaat yenn laaj yu fi judd laaj bi ci jiitu mooy euh, buñ ne weer yu feeñ na lañ wax buñ ne suba la koor mhm. dafay mel ne ñi gis ñenn ci borom xam-xam yi wala lenn daal ci li tusaaroo ñuy faral di wax naan muurum koor sañ nañ koo teel a génne waaw ndax sañ-sañ boobu fu tàmbalee ak fu mu yem ak it xëy na ñi ñuy topp du ñàkk am na ñoo xam ne nekkuñ ci seenum réew am na ñu nekk bitim réew ñi nekk bitim réew xëy na lii nekk fii li ëpp ci li ñu dunde ñun mën naa bañ a bokk ak ñoom fañ nekk la ëpp ci la ñu dunde ñooñu it seenum muurum koor la muy demee bu dee teel gi génne loolu fi muy ware fi muy ware lañ wax fi muy ware kon mooy ni nga ko waxee bu weer wi feeñee weeru kor wi war nañ ko joxe itam bala ñoo julli ji julli ji korite gi war nañ ko joxe bala ñoo julli ji julli korite gi fi muy waree it mooy bu weer yu feeñee bu dee génn gi nag kon ma nañ ko génn ci diggante boobu waaye itam boroom xam-xam biñ gisee biñ seetloo itam jublu gi ci nekk ndax jublu gi mooy kiñ koy jox man koo jariñoo ci bis bi mën a bokk ci feet gi loolu moo tax ñu gis ne bu fekkee gis nañ ne kat lii tax jublu gi mën a am mooy ñu teel ko koo jox ñu jox ko ko lu jiitu sax weer yu feeñ danañ ko ko mën a teel a jox mën na ko jiitoo benn fan ba ñaari fan am na sax ñu ko wax ne mën na koo gën a mën na ko gën a sori waaye foog naa fi muy aju rek mooy daal ci diir boo xam ne daal buñ ko fi joxee dana tax mën koo jariñoo ci li tax ñu koy jox euh, waaye buñ bàyyee bam sës genn sës gi rawat na jamono jii nga xam ne yitte yi bokkut ak yitte bu njëkk njëkk bu njëkk njëkk xëy na moom bis bi lañ ci daan soxla rek mooy lu ñu lekk xam daanaka nit ki buñ xëyee jox ko sax dana ko mën a jëfandikoo waaye léegi dañ ci soxla yeneen ba ci li ñuy lekk sax Euh, lañ ciy soxla sax du caaginu dañuy mën a xëy rek man koo am ba tax na kon jiital ko jiital guy tax euh, kiñ koy jox man koo jariñoo ca anam ya tax ñu ñu koy jox loolu tam borom xam-xam yi nangu nañ ko kon jiital ko benn fan ñaari fan wala sax lu mi ngi aju rek ci daal kiñ koy jox buñ ko ko joxe dana fi xaj mu mën ko jariñoo ci anam nga tax ñu koy jox loolu foog naa ne moom lu ñu lu borom xam-xam nangu la lu ñu lay itam euh, baal ma de mënuma jàpp ñaar fi mu ne hmm? waaw bu dee ñu nekk bitim réew euh, xam nga mburum koor nit ki fa mu nekk la koy joxe fa mu nekk la koy joxe ka nekk bitim réew tam li ñu wax li wax lii rek fu nit mën di nekk rek ci lii lay sukkandiku may fa nekk fa mu nekk rek la ñuy gën di jëfandikoo. fa mu nekk dañuy gën di jëfandikoo ci loo xam ne ab ab ab xeetu ab dund la dugub daal diggante pepp ak ba ci ay ay yeneen yi nga xam ne sax ay pat ay yooyu yëpp mën na cee mën na cee dugg te am na yoo xam ne àddina sëpp lañ koy jëfandikoo ci ci wàllu yooyu kon fu mën di nekk eh, day seet rek fa mu nekk dañuy gën di jëfandikoo ci yooyu bu ko defee mu génne ko ci joxe ko foofu bu fekkee gis na fa ñu ko yeyoo ndax ñu koy joxe jullit jullit lañ koy jox ab lañ koy jox boo xam ne euh, loxoom jotul ginnaawam bu fekkee fam nekk gis na fa xam na fa ñum ko ñu ko yeyoo kon foofu koy génnee jox leen ko bu ko fa xamul nag xëy na mën naa wax fi mu jógee ñu génnel ko fi mu jógee joxeel ko ko fi mu jógee bu lañ ko génneel it kon ba tey fo fañ koy joxe daal lañuy ñuy sukkandiku fañ koy joxe daal lañuy ñuy gën di jëfandikoo ci dund te loolu lañ koy génnee bu fekkee nag moom fi mu nekk xam na fi ñuy ko yeyoo foofu la ko war a joxe ndax muurum koor ci xeeti asaka yi la bokk te asaka yi noonu la seen mbir war a demee sëñ Abdul

biir ne bu ñu koy julli. léegi suñu jamono ji comme dañ ciy xool. loolu ci des na léegi loolu. ñëpp nag ñi nga xam ne moom mooy moom mooy lépp. ndax bu boobaa dañu ko mën a génne xaalis jox ko. bu fekkee mu xool moom mu ngi cee soppandi ko di coono. ndax gis nañ ne moom réalité moo ko wane. dañu bëree bëri boo leen dajalee ceeb yu bëree bëri jox leen. bañ caa soppandi ko jël jaar. jara euh, seet la mooy ndax mën na naa génne njëgu njëgu li ñu waroon a génne ndax mën na koo joxe ci xaalis loolu ni nga ko waxe loolu rek sax jamono jooy naka jekk sax naka jekk ci borom xam yi am na ñu wax ne naka jekk ñu daan wax ne sañees na ko sañees naa joxe njëgu li ñu war a génne ñaari kilo genn wàll li ñu war a génne ñu joxe njëgam naka jekk xëy na jamono jii nag nda gën a wone lii tax ñu aajowoo ko donte bu dee ngër mi bu dee ngër mi moom ngër mi bu imaam Malik ñoom dañuy bëgg ñu ñu koy joxe ca dund ba dañ ko bañ a bañ a joxe njëg li waaye dëgg-dëgg fii ñëpp ci waram xam-xam yi ci des jëm daal te itam buñ seetloo jublu giñ ci jublu itam jublu gi tax yonent bi farataal ko jublu googu joxe ko xaalis moo ko moo ko gën a mën a sottal ndax ni nga ko waxee bu fekkoon ne ñuy joxe ñëpp dañoo joxe ceeb ñu jox ko nit julli gi soxlewu ci ceeb rek julli gi bisub julli bi soxlawu ci rek ceeb te bu dee ceeb rek lañ ko jox kon ceeb bi dana da koy jaayaat moom da koy jaayaat ngir mën cee wut lam bëgg te bu ko jaayaatee day wàññi ko loolu ñëpp xam nañ bu ko doon jaayaat lam la lañ ko cay fay du doon njëgam dëgg-dëgg kon day mel ne liñ ko joxoon wàññiku na ndax jaayaat gi mu ko jaayaat ginnaaw ba koy jaayaat nag ngir jënd ci li bëgg kon loolu mu koy loolu muy bëgg a am ngir bu ko jaayaatee nañ ko jox loola rek benn muy xaalis xaalis moom ku ko joxe lu mën di soxla rek dina ko ca mën a wut mm-hmm. te du wàññiku ndax li ko jox ca lay wute la mu bëgg moo tax ma jàpp ne dëgg dëgg bu ñu xoolee jublu gi daal jàpp naa ne nag nangu ñu joxe ko ci xaalis moo gën a dëppoo ak luy sottal jublu gi euh, moo tax ma jàpp ne sax dëgg-dëgg am na ñu bari ñu ko jàppin ne buñ ko sañoon sax dañ naan moo gën joxe ko xaalis moo gën ndax mooy tax ba jublu gi gën a mën a sotti ndax buñ doon wéy di ñëpp di joxe ab dund rek day wëlbatiku di ko jaayaat te ko jaayaatee mu wàññi ko mën naa tax ba day gën a xat ba tey day gën a xat ci moom ngir man cee def lim ci bëgg a def buñ ko joxee xaalis nag moom ci saasi rek dana ca mën a wut lam ci bëgg wut te jublu gañ ga taxoon ñu santaane ko it jublu ga day gën a mën a sotti moo tax kon xëy na ngir mi moom nee nañ nañ ko joxe ci dund bi waaye wax dëgg yàlla xel nangu na itam nag ñu joxe njëg li sëñ Abdou Khadre ok jërëjëf Serigne Cheikhouna comme ni ñu ko waxee rek ngir mi moom lii lañu xamoon ci ak njëlbeen mooy ci dund gi lañuy wax ñoom li ëpp ci dund gi euh, waaye léegi boroom xam-xam yi ci yenn ngir yi ak sax suñu boroom xam-xam yu bees yi am nañ sax ñoo xam ne bokk nañ ci mësab imam Malik ci ñu bees ñi gis nañ ne li gën a dëppoo jubluwaayu charia ci buñ koy xool ci nit ñiy dundee ak suñu doxalin génne gu ci xaalis léeg-léeg mooy gën a baax ci ki nga xam ne moom lañ ko jox Euh, ñaari laaj rek xëy na bu ma ko laajaatee mën nañoo tëj bunt boobu mooy buñ demoon ba ne dañ koy xayma ci xaalis wala sax ñu ne dañ koy génne ci ceeb dëgg la fu mel ne Sénégal mën nga ne li ëpp li ñuy dundee mooy ceeb buñ ko doon xayma mën nañoo jël lu tolloog ñaari kilo ak genn wàll buñ ko doon xayma ci xaalis wala ñu koy peese di ko joxe hmm. waaye nag xam nañ ne fii ay qualité ceeb yu bëree bëri moo fi am hmm. waaw bu boobaa lan maanaam ci ban ceeb la génne ndax day topp di ceeb bi nit kiy lekk moom ci jëmmam ndax xam nañ ne am na ci ñëpp bokkuñ ceeb bu ñu consommé mm-hmm. ceeb yi bokkuñ njëg mm-hmm. boobaa nuñ cee doxale mm-hmm. ak buñ demee ba koy joxe kañ koy jox yan qualité la yan yan yan yan yan melokaan la ci lislaam teg ndax day nekk ku ñàkk ku nangam ku nekk jullit ndax ak jullit farata la ci wala ku mi doon dal waaw waaw bu dee li ñuy joxe qualité bi ñuy joxe mën naa digg doomu rek digg doomu ndax wàllu joxe ci boppam rek lu ci bari dañuy bëgg mu digg doomu lu mel ne asaka ko amoon la mu war a génne asaka am am qualité yi wuutu dañ naan wuute dañ naan na génne te la digg doomu kon li digg doomu rek bu dee nit ñi li ñu jëfandikoo ci dund bi ñuy dundee qualité yi wuute la mën naa seet ba ci diggu doomu rek te booba foog naa ne itam mooy doon bi nga xam ne ñi ëpp ñëpp moom la jëfandikoo kon mooy ñëpp lu jëfandikoo rek man na ko natt ci bi diggu doomu rek bu fekkee nag mën na koo joxe ca ba waa ñu dara bu ko bu ko soobee ko soobee na ko joxe ca ba gën ba gën a féete kaw waaye bu génnee ba ba diggu doomu itam def na def na def na wàcc na xëy na li dul gën daal mu tànn ba ca gën a ba ca gën a ñàkk solo mu mu mu cay tànn di ko joxe lépp lépp doon ca loola waaye bu génne ci digg doom baax na bu mën a génne ca ba gën itam baax na bu dee koy jox moom day nekk jullit day nekk itam ku aajo ku aajowoo ku aajowoo mooy koo xam ne bis bi li ko ci war li ko ci war amu ko lii tax mën bokk ci feet gi amu lu mën a dunde man cee dundal ak njabootam man ce bégale ak njabootam man cee yaatalale ak njabootam ku amut loolu kook lañ koy lañ koy lañ mën a jox ba sax nit mën nañ koo jox sax moom ba far mu am lu ëpp sax li mu aajowoo mu joxewaat moom ndax saa boo amee lu ëpp lu mu ci bis bi rek day war a joxe moom moo tax sax nit mën nañoo xëy di ko jox waaye balaa kii tuuti far moom muy joxe moom itam ndax bañ koy jox dañoo yëgoon ne euh, aajo woona waaye ñu jox ko ba aajoom lu ëpp aajoom far ko ëpp la ci ëpp moom da ko joxewaat da kon daal na nekk ab jullit te nekk ku koo xam ne lim aajoo ci bis bi amu ko bu ko defee ñu jox ko ngir mu mën a bokk ci feet gi feetandoo euh, ak ñëpp. ok jërëjëf kon yaakaar naa li aju ci mburum koor moom leer na euh, ki ñu koy jox ñaari charte yooyu mu ci solo mooy na nekk ku ko soxla koo xam ne daf daf ko daf cee lott ci bis bi. Mhm. waaye na nekk ab jullit. kon nag yaakaar naa ñi ñuy seetaan te nekk ci yenn réew yi nga xam ne xëy na jullit yi dañ faa néew. Mhm. mën nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. mën nañoo jël lu bari joxandoo ko kenn. mën nañ koo tusaare it. ci ni ni niñ déggee ci waxtaan wi. kon sëñ bi xam naa dañuy jàll rek ci julli ka it bu ñu génnee muurum koor ba noppi dañu julli ji. Mm-hmm. julli ji googu lan nga ñu ci mën a tënkal ci ay àtte. melokaan bi julli bi war a yor buy waaj ngir dem ca jumaa ja wala ca jullikaay ba. Mm-hmm. ba ni ba ni mu ñibbisee waat. Mm-hmm. bu dee julli gi. julli gi ci feet gi la bokk. loolu tam lu jar xel la ci feetuk lislaam. lislaam feetam. du doon rek euh, bëgg ak foog reeg yu mel noonu rek waaye bëgg ma nga ca reeg ma nga ca waaye jaamu yàlla ci nekkaale itam ndax ñaari feet yi nga xam ne moom la yàlla sàkkal jullit ñépp ñu bokk ko mooy correct tabaski gu ci nekk day boole yooyu yëpp gu ci ne ak julli da caa bokk nga xam julli ci biir feet gi la bokk kon euh, jullik euh, korite moom julli tabaski la ñuy tuddee julli feet yi ñaari feet yi ndax lu ci nekk ak feet la euh, bisu bisu koor bi nag buñ ko doon tënk rek dañ naan bëgg nañ nit ki ginnaaw bisu kooree la kon bu xëyee balaa julli ji na mos dara ndax moo xam ne wari na bis boobu du bis bu ñuy woor dañoo bisu bu waa kooree la kon balaa julli ji na mos dara benn ñaareel ba itam na sangu ndax day dem ci mbooloo te mbooloo ku cee dem ko dañuy bëgg mu set na waaj waaj gi bokk na ci mooy na na na laal lu xet gu neex ci ay yéreem ak ci jëmmam ndax moom te mbooloo la jëm ta mbooloo dañuy bëgg kuy jaxasoo mbooloo nekk fa ak xet gu neex dañ faa nekk xet gu safaanoo na sol bu amee lu yees mu sol ko boo mu lees mu sol lu set ndax loolu lépp ci catug lislaam ak ak ci liisam ci la dugg mu sol lu set bu ko defee nag daal dem fa ñu jullee buy dem nay tudd yàlla ba ni mu àggee bu àggee di néggandiku ilimaan jiit na wéy di tudd yàlla di néggandiku julli gi mën naa wéy di tudd yàlla buy dem sax mën naa yëkkati kàddoom sax bu dee mbooloo lañ man na ñoo yëkkatee seen kàddu sax di tudd yàlla allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu akbar walilahi alhamdu ak yu mel noonu bu ñu àggee toog kenn ku di wéy di tuddal yàlla boppam ba ñuy taxawal buñ taxawalee mu ànd ak ilimaan julli buñ sëlmalee it mu toog déglu xutba bi ñu bari dañu yàkkabte buñ buñ sëlmalee daal di jël seeni kii dem waaye xutba bi dañu bëgg ñu toog déglu ko buñ toogee déglu ko ba noppi nag door a dëppaat daanañ ci sopp yoon wi muy jaar buy dem wuuteeg yoon wi muy jaar buy dëpp loolu loolu luñ ci sopp la euh, kon daal ci tënk mm, bu bu xëyee ba ni muy julli ba ñëw daal mënees na koo tënkee noonu liñ ci xam rek mooy julli euh, koor ak tabaski yëpp nag euh, du du am naafila du am naafila ju koy jiitu wala ju koy topp mooy duñ amul dawal amul toftal itam moom boo agsee bu fekkee ab bayaal la du du du ci biir jàkke wala biir jumaa du ci biir jumaa boo agsee da toog rek xaar bu ba noppi itam da ngay xut ba noppi rek nga dellu waaye amul dawal muy julli koy jiitu amu fa julli gu ci topp itam amu fa doon ci biir jumaa la nag boo agsee da nga nuyu ji waaye bu biir jumaa te ci ëpp bu ñu amee bayaal bu gën a yaatu jumaa ja def ko ca bayaal ba moo gën bu ko defee ñu fay teew gën a mën a yaatu ñi mën a teew ci biir jumaa ji boobaa da ngay agsi rek toog di tudd yàlla bañ taxawal nga julli boo noppee ni ko xutba bu xutbaa ba noppi nga delluwaat loolu foog naa ci bisu kor yi tabaski noonu la demee rek ñoo ko ñoo ko nuróole sëñ Abdul Xaadir ok jërëjëf

murum koor murum koor moom ku mu waroon ku waroon te joxewu ko dana ko fay ku ko dana ko fay bokkut ak nag ku ko mënut ba mu jàll ku ko mënut ba mu jàll moom bu ko mënaatee itam du ko joxe ndax waxtu waxtu war wa waru ko woon waaye ki ko man nag defu ko ci waxtu wa moom bu jàllee itam da koy fay bu dee kori moom jërut fay moom bu ko ku julliwul rek jërut fay xanaa koo xam ne daal ci bis bi ñëw na ci mbooloo mi yeex a agsi bañ julli bañ julli mën naa julli këram mën naa dellu këram jullee fa mm. bu ànd ak njabootam julli baax na bu dee julli moom rek baax na waaye bés bu jàllee nag amul julli korite sëriñ Abdul gi nag xanaa di ñaan rek ginnaaw koor gi dafa jub si di ñaan yàlla mu àggale nu ci ak jàmm li des ci koor gi itam li des ba nage yi nga xam ne mi ngi sun kanam ci biir koor gi it root na leetul xadr nga xam ne dañoo santaana ñu di ko dàkk ci fukki guddi yi mujj ci koor gi rawatina guddi yi ci tool moom it nu wëy di ko dàkk nu wëy di ko dàkk te ñaan yàlla mu dajale na ak moom dajale gi nag ku ku ko dàkk ci guddi yëpp bu soobee yàlla da nga daje ak moom kon nag fexe di ko dàkk ci guddi yëpp rek te loolu mooy guddi yëpp rek ñu ci yokk ñu ci yokk ay jëf yu baax rawatina ñaan googu yonente bi waxoon soxna Aïcha euh, mu ne ko bu may dàkk leetul xadar bu ma xamoon ne tey guddi sàng mooy leetul xadar lu ma ciy wax mu wax ko ñaan gu gàtt goo xam ne boobu itam mën nañ cee jar nañ bàyyi xel allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni loolu daal kon la ñuy xëy na dénkaane li ci des ba léegi ñu xam ne koor gi des na li ci des itam ñu ci gën a góorlu rek euh, ñaan yàlla yombalal nu ko nangul nu ko te nin ko waxee woon rek nu fekk waat ko itam ay at yu bare bëree bari mu nuy fekk ci ak wér ak tal amin jërëjëf sëriñ bi jërëjëf yéen ñi ñu doon seetaan di ñu topp ñu ngi leen di sant bu baax a baax leen gërëm kon tey tomb gàggantiku bi ni ngeen ko déggee dafa aju woon ci ñaari àtte muy lu aju ci muurum koor ak jullik ayit yaakaar naa li ci sëñ bi tënk am na solo lool suñu kàddu yu mujj dañu koy booleek ay kàddoom rek di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu boroom defal ñu li ñuy wut di ko sàkko di ko mébét ci fan yi mujj koor gi daje nañu laylatul xadar nangul ñu suñuy jaamu yàlla te fulal ñu ko yàqal ñu ko fu làqal ñu ko fu yàqu àggut dañ jox dig daje ci beneen eh, émission gàggantikoo incha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man